li ma moy sas bu reuy ndax euh, ñu tan la ci parmi tous les jeunes yi nga xamanteni ay jambar lañu ah, ñu boole la ci sas bu reuy la yëg ak xol bu sedd euh ak gëna ñaax sama bop ci gëna gor gorlu ci lima nekkon suma doon def ben man nañ tay dañ ma sa sas bu nga xamanteni dama wa def 10 euh di sant yalla bu baaxa baax nak di di sant yalla bu baax di wax alhamdullilah rabbil parce que tey euh, li ñu am ni euh lu rëy rëy la ci ñun lu rëy rëy la waaye nag dañ koy sant suñu ñaari waajur yi nga xamante ni tey ñoom ñoo def tey li nekk ci ñun bañ mën ñu distinguer parmi euh, suñuy nawle. Ah, xanaa ñu gën a góorgóorlu ki suñu éducation njaboot euh, d'abord nit dafa am loo xamante ni muy jullit muy foo mënti bokk dafa am loo xam ne dafa jiitu ci yow mooy xam sa diine xam sa diine mooy tax nga xam fi ngay teg sa tànk te ci nga mën a defaree sa ëllëg ah gëm sa bopp aussi comme ni nga ko faral di waxee ñu xam lan la signifié su ko defee ñu gëm suñu bopp. bi ci topp mooy fonk suñu waajur parce que waajur mooy lépp tey lu waay am ba mën ko ah yàlla def la nga juddu màgg ñu yar la teg la fi la war teg ba nga tekki li nga tekki yaakaar naa ne ñooñu dañ leen war a fonk muy fonk waajur yi kon nañu góorgóorlu ñu fonk waajur yi te xam ne tey waajur yi lu ñu am tey ñoom dañ koo liggéeyoon te ñun suñu liggéeyoon lu ñu am loolu kon ñu ngi ñaax jeunes yi ñu fonk seen diine jàng seen diine xam ko mën koo dundee ah, mën ko defaree seen dund aussi lay wax waye timi ñu gëm seen bop waye timi ñu fonk seen ay waajur fonk seen waajur buñ ko wax am na ñu nga xamante ne nañu te gisunu waajur mais yalla bo leen ak ay mag yu bax yo xamante ne leen tete bañ tollu ñu tollu kon nañu dénk seen bop seen i dox ci seen waw ci kaw ñu dénk leen lu nga xamante ni ñu sant leen lu nga xamante ni ci demul génnul diiné nañu jël référence ci suñu mag ñu bax ñi nga xamante ni def na tay Sénégal jaru muy jéggani fenn diwut wut fu mu roy ci biir réew ma rek man ñu roy suñu mam yu bax yi sunu waajur yu baax yi sunu mag yu baax ak sunu yaayu yu baax yi